ñun nag suñ koñ bi gis ngeen nu mu mel gis ngeen nu mu amuñu ndox amuñu courant boobu ba léegi eh, loolu daal la ñuy tawat daanaka lotissement bi moom euh, boobu ba léegi ñuy topp taxul mu sotti eh, buñ sañoon nag ku fi mënti ñëw jàppale ñu si ndox ak courant ak lotissement loolu rek mooy suñu mébét bëgg nañu ndox bëgg nañu courant boobaag léegi topp nañ ci beetaay mais taxul mu ñëw amoon ku ci jàppalee nag wax dëgg yàlla ñu sant yàlla sant la. xale yi daaw nañ ci ba sonn wax nañ ci ba sonn mais ba léegi yàlla sottilagul lu sot lu yàlla sottilagul nag mënul sotti mais nañu na ngeen xam ne daal vraiment loolu mooy suñu tiis ndox ak courant lotissement bi tamit ci la waaye lotissement yi comme boobu ba léegi bi daa xaw a xat te tam amuñu place bu xaw a yaatu bu ñu fa mën a def. ah wax dëgg yàlla loolu daal mooy suñu tawat.